biling balang tàmbalang Bellingham dikkati na waxuma belli belli moom tàmm nañ ko ci moom Bellingham na raté jamais son rendez-vous dikk na is back def difference mais Rodrigo waaw la ma leen waxoon ci moom lan laa leen waxoon buñ ko weeree ci bi benn ñaar ñett léegi mel ni fit salaam gars yi bégg naa leen nuyu leen ku ci nekk ak seen tur ak seen sant képp kuy doog a dugg ci compte bi abonné ngay like di commenter Real de Madrid tey rey na Cadiz rey ko ba mu moomee tamit quel jeu quel jeu bu rafet tegu ci temps Toni Kroos leader Modric ndeysaan dàggalam mais kooku di Rodrigo tey jii laa eh, eh, délivré un excellent match man homme du match moom laa koy jox ma ngi xaar ci commentaire yi kan ngeen di jox homme du match dañ doon inquiété wu di sikki sàkk ni ah est-ce que retouru Bellingham du indi problème Real de Madrid ak jamono ji joueurs yi Real ni amee confiance ak seen système bi doon tegal ni ca doon amee réussite ah, mu ngi noonu mais def nañ ne retour bi ñëw na no problème a bien teewut Rodrigo tamit dugal na mais tamit Vinicius bu ñëwee moom lay xalaat ba tey am na manquant ci euh, système bi nga xam ne Alicia mu ngi koy faral di teg en tout cas critique bi kaana ci côté Real de Madrid ci seeni attaque bi nar naa yëngu nar naa jaxasoo janvier bi damay ragal ñu jënd attaquant pour war a mën a renforce seen secteur offensif bi mu ngi noonu soit peut-être attaquant top mondial en tout cas tey jii Real était top ci défensivement Rudiger était là offensivement naka noonu milieu terrain bi lekk rek lañ deful milieu terrain bi ñu gis benn Bellingham boo xam ne malgré sa blessure bi jotoon am terew koo mën a ñëw wane boppam wane ne ah leader la ci équipe royale la mu doon wane démb tey moom lay ñëw wane gis nañ benn Rodrigo boo xam ne il était exceptionnel la ma leen waxoon ci moom rek. <coughs> Rodri dafa commencé woon di yab nit ñi bu ngeen ko weeree ci banc bi benn ñaar ñett mu xam ne ni kii place am c'est menacé te ñoom Brahim Diaz ak Arda Güler mi fi ne. ay gone yu mën football lan dana def fulla ak fayda jom ngir mën a wane boppam loolu la Ancelotti di dégg def ko effectivement gis nañ résultat yi actuellement ay double lay laal ba évolution bi macha allah waaye Real profité noonu na ci niiru baax saa bi ngir mën a gën a yokk distance bi les Catalans Xavi daanaka bokk na ci ñi leen waaye di looloo loolu ba tax distance bi gën a yaatu mënoon ngeen topp ci ginnaaw muy gañe ngeen gañe wala soit ngeen rawanteeg ñoom seen mais laa muy gis nii. safi rythme bi mu day téye nii bu ko ko néem ah du yomb de mu ngi noonu xamee ko noonu gars yi jàmm ci yéen képp koo xam ne abonné goo sama chaîne YouTube dugal sama bio TikTok bëggas mu yóbbu la YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo yi ba jeex loolu la ñu mën a soutenir bu baax a baax Real rey na Cadiz dóor ko 3 bi à 0 doublé Rodrigo ak benn biu Bellingham Bellingham Tambala jaajëf. Fassane eh. sa liggéey bi nice na ok. continue t'es positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien. merci à toi ñoo far kontaan naa. rek moom góor. walaay ndeysaan. saa yi gerte la ñoo far. rek moom grand Diouf. ci waaw. mais Bamada. walaay nga wax. walaay ndeysaan. <laughs> walaay ndeysaan kese. donc continue quoi. incha allah merci. yàlla baax na bii laa soxla après daal la nga koy ah après daal la nga koy jox.

قل عمك تعقلن نفسكم هذا خير إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا ولله tey yaa ngi leen def ay Sinoa. ngeen mokkal alxuraan ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax a baax si yaatu macha ak jàng alquran